dégg na alxayri Racky Aïdara mi nekk ci série bi di Mœurs génn na ci célibataire gi mu nekkoon niki démb la célébré am mariage am foofee ca Parcelles Assainies moom actrice bi nag ki ko takk du kenn ku dul joueur footballeur bi di wuyoo ci turu Babacar Gueye te muy football ci équipe bi di Paderborn nekk ca championnat bu Allemagne maanaam Bundesliga waaye nag mu mel ni seen mariage ñoom ñaar du benn surprise ndax bu ñu fàttalikoo ci anniversaire u ay Aïdara fësaloon na ci digganteem ak Babacar Gueye démb ci dimanche gi nag lañu fësal meilleur et pour le pire bi mariage bi di jub si nag Racky Aïdara posté woon na benn snap ca boobule vidéo nag ay dara mu ngi ci doon tari ay aaya alxuraan ca boobule vidéo sax ba léegi mu ngi cay wax je n'oublierai jamais d'où je viens je suis shérif et fier maanaam ci wolof rek du ma mas a fàtte fi ma jóge ndax kat man ab shérif la te dama cee kontaan lool kon alhamdulillah mu njëkk a sol nag yëre yu weex tàll yu ko jàpp lool macha allah moom actrice bi sol na ñeenti sol yu bokkul ci bisu mariage bile. xanaa rek waa Tactic TV di leen ñaanal mariage jàmm dañ am ci njaboot yu barkeel. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sabbih ku jënd sa kanam ku jur yaram waaye ku jënd sa kanam. maa ngi ñaanal Babacar Gueye. amiin rakki ay garab. bi fadlillahi ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi